ak bi mooy ñaateelu édition. Euh, salaamaaleykum. waaleykum salaam. Euh, soxna faatu mm-hmm. ñu ngi leen di nuyu bu baax di am mbégte bu baax. Mm-hmm. di teew ci place bii nga xam ni. Mm-hmm. jeexital la ci ziyaara boobu ñuy préparer. ndax li tax mooy Seyyid Mouhamadul Amin yal na yàlla yokk ay leeram. Euh, doomi maam xalifa ñas la. et pas n'importe lequel. bokk na ci caneer wu leer yi nga xam ni maam Khalifa Niass waxoon na ca kibritul ahmar ba muy wax bàkk soppeem ba Cheikh na Tijaani mm-hmm. ne eh, maanaam nit ki soo defaroo comme ni ko oustaz doon wax léegi mm-hmm. li la yàlla jox yëpp ci ay moyen pour defaru mm-hmm. nga defaru ba pare da ngay dem ba mujj gi mu ne alqaa sawaatia anwaarin bi af idatin yazulu min daw iha daaji dujunaati da ngay émettre ay faisceaux lumineux da ngay fenêtre ay ay lumière yoo xam ni ku la séen rek dafay xam ni wax dëgg yàlla macha allahu ku defaru nga mhm. euh, ziyaara boobu nag euh, ñu sose ko ca leew nañu seen mhm. waaye mu am ay euh, mbir buy màgg dafay yaatu mhm. dem na ba tey ay dawaayir yu nekk Amérique nekk ci liggéeyu jàmbur mënatuñ di déplacé wu ñi nekk France ñi nekk Italie ñi nekk Espagne nekk fu nekk ah docteur Cheikh Ahmed Khalifa Niass nag ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara bu baax mhm. gis ne ndagam ñooñu ñoo mën di lumière yi caneer yi moo mën a àgg foofu bañ ko fay def mhm. pourquoi pas Dakar d'autant plus que li tax ñuy ziyaara mooy euh, bokk na ci objectif mhm. comme ni ko oustaz doon waxee ci di tax ñuy julli parce que def pour problème mu defaru la mm-hmm. nit ki dafa war a defaru ba pare balaa muy mën a defare mm-hmm. parce que su defaruwut su yàqoo rek société lu bëri environnement am dafay yàqu docteur Cheikh Ahmed Khalifa Niass nag ci mbaaxam ak bëgg lu baaxam mm-hmm. ñëpp xam ko mu ni nim ko waxe 1958 la àndoon ak way juróom wu tedd maam Khalifa Niass ñëw Ndakaaru di ci invitation bu gouvernement Sénégal invité woon pour général de Gaulle bi fi nekkoon. Mhm. comme niñ koy defee tey état ak ñi nga xam ne ñooy këru diine yi. Mhm. bi mu ñëwee góor gi daloon fii ci Médina ak moom fu ñuy wax kër Alpha Diol. Mhm. famille am ñi ngi fi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di nuyu fukki penc ak ñaari lébu yëpp ndax ay wëllëre yu yàgg lañ. Euh, bi mu ñëwee mu ne ko yow de mu ngi nekk xale bu ndaw. am daanaka fukki at yu teg tuuti mu ne ko mhm. yow say mbir fii laa ko gis fii lañ la dël mhm. fii lañ la prom promesse la mhm. euh, mu ne ko ah bàyyi fii xaw ma fi kenn de te sori na mbokk gi mu ne ko euh, sori na waaye ñëpp danañ la fi fekk ku la fi fekkul doomam dana la fi fekk wala sëtam wala jarbaatam na nga préparé wutal leen fu yaatoo yaatu foo xam ne buñ ñëwee danañ fa xaj nee na loolu di togg ci moom gannaaw baayam di togg ci moom di togg ci moom ba 1975 eh, bi mu wëree àdduna fu nekk mu dem fa jàng jaxasoog buur yi jaxasoog lu ne ñëw jël expérience bi toog fàttaliku li ko waajuram waxoon xam ni nag mission bi jot na jot na rawatina d'autant plus que 1975 boobu suñu maam cheikhul islam Baye Niass mi doon waxtaanee ci gàmmu Nigéria moom moo tali ci moom ak magam ak ay rakam yu bëri yu mel ni Seyd Mouhamadou Arabi seen yar seen gannaaw baay macha allah jóge na fi mu xam ni wax dëgg yàlla kon taxawal mission bi jot na mm-hmm. euh, ci la dem ca ñàgg wut fa ñetti hectare ci départ bi mm-hmm. wut xaymaam bu ndaw pour royukaay mm-hmm. def ko fa ñëwul Dakar luye ñëwul def dara di bay ci wet gi di roose moom ak soxnaam suñu yaay Xadi Saar jiitu na yàlla yàlla dolli leeram te foofa lañ ko denc di bay di roose di xëy suba di ñëw ndakaar di ay soxlaam di dem fa ñàgg di dëkk ak lébu yi lu ñu amante nettali sax ni jamono booba eh, lu mat ay ñeent fukk la daan joxe wala gën gaa bari téeméer mm-hmm. léeg ñu jënd seen gerte caaf ndax seen wayjur suñu yaay Sayda Aminatu dara moom ak Sayd Mouhamadul Amin ak suñu bàjjan Salma daf leen daan wax su ngeen amul dara nangeen ngeen woor ndax soo wooree benn yoon rek ngay lekk te soo xasee lekk suur nga di nga am jaamu yàlla amaale lépp waaye moo gën ngay def leneen wala ngay dugg ci loo xamul mm-hmm. kon loolu ay exemple la mm-hmm. mu ñëw fàkk ñàgg ña seen mm-hmm. eh, doon fa bay ba bay bi yokk mu jigi di bay lu bëri ba mu demee ba mbir mi ëpp ko doole mu jëli ay taalibe yoo xam ni leen samp fa dëkk def fa dëkk muy produire lu bëri bi mu demee ba gis na nag dëkk bi dem na ba àgg fa euh, ba léegi ba mi fii may wax ñu ngi fay bay yu bëri xeet yu bëri yoo xam ni ay fraise ak yu bëree bëree bëri am na jeunes yoo xam ni dañoo doon def affaire immigration clandestine démb rek a ci mujj bi may ñëw joxaale nañ ma ci fraise yi ma indiwaale ko bokk nañ ci tey ñiy produire di di di di jox Auchan hmm. tey ku leen te ñu liggéey te waaw am nañ métier ba pare suñu suñu liggéeyee ñi nga xam ni ñoom ñoo ciy liggéey dañuy dañuy liggéeyloo lu mat vingt femmes par deux jours parce que par deux jours la ñuy mhm. ñooy jël boîte yi di ko ci def. te femmes yi deux heures de temps rek la leen di soxla par jour. Mhm. koo xam ne nag da nga demoon bay dugg ci émigration nga dem ba mu yàgg nga retourné ñëw créer sa petite entreprise di liggéey. Mhm. ñii di liggéey leneen kooku royukaay nga. kon mën nañu wax ne docteur Amir euh, Khalifa Niass moom moo njëkk a aménagé foofu ñàkk ñaseen. Ah, dundal suuf euh, ak ñoom dëkk bu rafet. ñu leen Euh, bu ko defee ñooñu ñoo ko jox ñetti hectares yooyu seen suufu maam te ku hmm. de xam lébu xam suuf ni ko lieson bi ko def ak moom hmm. mu denc fa ay kiyum su ku mu ko yëkkati jox rek hmm. am na fu la teg moom it wax dëgg yàlla kóllëre googu tax bind sax ci testament am yàlla na yéex ne foofa la bëgg ne nañ ko fa denc ndax aawoom bi mu fa àndaloon di Seyda Khady Sarr bi mu génnee àdduna foofa la ko yóbbu denc ko fa wax dëgg yàlla kooku royukaay la beneen bi ci des mooy xam nañ ni tey ñu bëri ci taalibe yi suñ jógee fii di dem Kaolack wala ñuy dem feneen wala ñuy dem Tivaouane wala dem Touba zone boobu léegi presque li fa dëkk ëpp na un million de personne mm. looloo tax sax état bi comprendre loolu. ba tax mu jël Kër Massar def ko département. te en général kër goo gis dix personne su suñuy dem mag ñi ñooy dem bàyyi fa xale yi. te mm. sécurité bi fi mu ne dafay poser problème. Mm-hmm. mu ne nag euh, na créer loo xam ni ñoom au lieu ñuy déplacé wu di dem di fa bàyyi njaboot gu sew gi ñeneen di leen jël wala ñuy dugg ci leneen mu jël li nekk ci kër yooyu ñëw jegeel leen ko mhm. ba ñi mënul dem ñi mën a dem bu ñu demee ñi mënul dem ñëw wax dëgg yàlla suñ toogee ba ngoon jot ñu ñëw euh, yëg ni ña dem ëppale wuñ leen ci di ñuy def dara ndax benn nit la woon muy maam xalifa Khalifa su mu am ay njaboot ñu tasaaroo boo amee njaboot nag kii daf lay niru tabe kii niru la laabir kii niru la taar mhm. kenn ku nekk niru la loolu mooy barke macha allah kenn ku ci nekk li nga jël ci sa waajur soo ko yaatalee rek macha allah lépp di mën cee jot daal ziar bi suba mm. bi ci des minutes nan lañ war a taat nan la nan lañ war a mm. euh, doxalee li nga xamante ne mooy ziara bi waaw ziara bi moom mm-hmm. euh, yàlla def na li ma la ko waxee ñàgg ña seen. 165 mhm. hectares la. Mhm. loolu moom ragal naa suuf su laat suuf su yaatoo noonu libre noonu. Mhm. amatul Ndakaar état amu ko. kon loolu te mu fàkk ko depuis quarante ans. kon am na lu mu préparé woon. pour nit ñi ñëw fa. démb nag ci guddi la euh, daayira yi commencé ñëw jógee Fuuta jógee Bakel ñi gën a sori. nga xam ni dañuy daw presque quinze heures de temps. di noppalu di def ex soog a yegsi. te fexe nañ ba étape bu ñu am rek. Euh, fexe nañ fa ñi nga xam ni ñoo fa nekk di ay taalibe war a ñëw danañ ànd ak ñoom ñu wàcc defaruwaat préparé waat ñoom convoi yi dëkk bu ñu romb rek dañuy jëlaale ñooñu ñu déplacé wu ñëw démb agsi nañ ci guddi gi ànd ak diis bus ak ay oto yu ndaw a euh, mag xale ak ndaw ñoom ñëpp mobilisé wu nañ ñëw falaa jóge Euh, émission bi moo tax ma déplacé wu. Mhm. ñëw maa ngi waaye li may ñëw yëpp maa ngi bàyyi xel ndax gan ñi niñ bëgg mhm. ni sëñ bi bëggee ñu toppatoo toppatoowee leen. toppatoowee na lañ leen ko. ban bërëb koy defee. waaw ña ngi koy defee foofa ca ñàgg. waaw ca ñàgg ci place boobu mu nekk. ndax 165 mhm. hectares moom amul lu mu mënta recevoir. waaw moo tax sëriñ bi mu ngi ci woo mbooloo mi Sénégal yëpp. ndax macha allah moom ku ne xam na ko. ci franc parler ci hmm. kàddoom ak ci waxam. xanaa nañ ko xaar ci ay thèmes yoo xamante ne. waaw waaw parce que hmm. le grand discours. Hmm. bi nga xam ni tey politique mondial bi. ak géostratégie ni àddina bi tëddee. te Alquran wax ci. yonent bi sallallahu alayhi wa wax ci. ndax moo doon pourvoyeur de solution moo daan indi solution bokk na ci këru diine li ma doon wax boo defaruwul mënoo defare te julleeg yooyu daf lay dimbali nga defaru waaye benn nit bu defaru mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla kenn rek la defar mu yonent bi bàyyi ko mu defar ñi ci des ñam defar kenn ku ci nekk seet benn group defar ko ba suñu maam yi kenn ku ci nekk tey fii ñu toog benn nit bu defaru moo ko defar moo ko defar wallaay ba ñeneen ñi nga xam ni kenn ku ci nekk defaru ba yéen ñi kenn ku ci nekk liggéey bi ngay liggéey am na ñeneen ñoo ciy formé ñoo ciy préparé ba boo jëlee congé wala nga absenté ci jàmm ak salaam mu am ñu la mën a remplacer mhm. kon doomu aadama yi yàlla daf leen a jokkale yàlla daf leen a interconnecté defaroo leen ni mu doon wax ci jokk mbokk daf leen a jokku mbokk wolof nag boo ni mbokk ñoom dafay jàpp mbokk gi mbokk gi deret rek la déedéet ñi bokk alal bokk palaasu liggéey ay mbokk lañ parce que li ñuy gisante ñoo ëpp li ñuy def ndàngam mm-hmm. donc fraternité boobu ci pas-pas la nekk ak ci bëgg-bëgg ak ci wax dëgg yàlla taxawaay taxawaay boo xam ni dafa war a am jeexital ci doomu aadama yi docteur Cheikh Ahmed Khalifa Niass nag euh, vole yi muy def dafa bëri vole économique vole politique bi lépp lu mu ànd ànd ànd ak régime léeg-léeg nga gis ko nga toog ba mu yàgg mu def discours nga ni waaw xanaa kii dafa contre régime bi àndul a kenn contre kenn mhm. moom ki nekk ci di toppatoo nit ñi mhm. di dëgg di defar nit ñi kooku lay waxal su la waxee déggoo dana génn ci waxukaay bi taxaw wax li nga xam ni moom lay wax ay principe lay défendre te principe yooyu fa mu ko jëlee dafa sori lool ndax dëgg la maam Khalifa Niass mooy yooyu juróom waaye wàllu yaayam deretu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la kon wax dëgg yàlla am na loo xam ni amul droit mhm. di ko ñàkk a def mhm. waaw di ko ñàkk def moo tax taxawaay boobu mu taxaw tey mhm. di defar jeunesse bi di def discours boo xam ne di wan jeunesse bi ne leen diine ji kenn moomu ko kenn ku nekk mën ngaa toog ci dëkk bi di liggéey lu lew am ay milliards parce que Sénégal moom léegi dañoo gëmloo nit ñi tappale ak mhm. ay pexe yoo xamee ni eh, dem ba daara ji ak lu bëri ñu gannaawal ko yaakaar ni comme ni ko Seyd Mouhamadul Amin suñu wayjur daan waxee doomu daara dafa war a tàllal loxo bokk nañ ci ñi nga xam ni ñoom mhm. tey dindi nañ loolu ci doomu daara yi tey ñu ngi créer ay entreprise génne ci daara ji sans complexe dem jàng ba li war a jàng yépp yonent bi sallallahu alayhi wa def ni al islaamu diinun wa dawlun diine la muy sa diggante ak verticalité la mais wa dawlun horizontalité la aussi muy religion nga jëflante ak nit ñi seq ak ñoom li nga war a seq ak ñoom parce que benn bu ci nekk danga nga ci am responsabilité donc loolu dafa conscient ci loolu xam ko bu baax moo tax du yendal du fanaanal moom mooy tere moo ñuy tere ñun ñi ko jege sax mm-hmm. véhiculer action yi nga xam ni moom lay def moom lay def daf koy hmm. tere hmm. ndax ajjuma bu jot xadara bu jot hmm. juma bu jot man mii di wax ak yéen dana teg ci sama loxo un million ci paas ci ñu fay ñëw ci xadara ajjuma ju jot ajjuma ju jot macha allah ci këram fii di ko jox nit ñi ay action sociale ñi nga xam ne ñooy ñëw ordonnance am leetar am nàngam du ko gis du ko contrôler du ko toppatoo ba pare togg ay lekk nañ nañ ko def ci nañ def ay barquette jox ko nit ñi ñu yóbbaale na am na koo xam ne ñëw na lekk na waaye ñam bàyyi gannaaw lekkuñ pour mu mën koo yóbbaale donc action yooyu nga xam ne humanitaire yooyu muy def mhm. euh, wax dëgg yàlla euh, damay wax ni buñ xamul woon fi mu bokk sax jikkoom tax na ñu war a xam ni kii de fu baax la bokk ndax defaru aussi ci jikko la war a feeñ dafa war a dem ba feeñ ci jikko ba nga xam ni nit ñi war nañoo xam ni na euh, li nga war li ngay def daal ku defaru nga waaw moom daal borom itte ju rëy la mhm. ndax ku ñëw ba dakaar am fi cent soixante cinq hectares mhm. nit ñi di am problème mu cent cinquante mètres carrés yu ñu dëkk mhm. nga am ko pare ñu bis bu set VDN Traverse Dia ñu indi ay investisseurs fay la plus de mille milliards pour jël ko nga ni déedéet dafa tabax ay cité mhm. ne man dama koy def ay habitat social mhm. euh, ba nga xam ni kenn mënu koo euh, kenn mënu cee dugal. loo ah. xam ni kii la loolu mm. c'est extrêmement important. bëggoon gën a gën a yàgg gën a yaatu ndax waxtaan bi comme ni ñu ko waxee am na solo bu baax a baax ci sunu mm-hmm. baay joojee di Ahmed Khalifa Niass di ko mm-hmm. ñaanal rek mu mm-hmm. yàgg fi yàgg fi di di jiite kër gi. incha allahu rabbi waaye tam di woote comme ni ñu ko waxee rek. ñu ngi suba incha allahu rabbi. ci événement boobu ci ñàgg euh, euh, ñaseen Fatou di leen bàyyi ngeen tàggatoo waaye itam di bàyyi Khalifa Arabi mu daal di tàggatoo ak téléspectateurs yi ñu doon si tàggatoo. gërëm di wax ni tey ci àjjuma ji incha allahu ni mm-hmm. programme yi di tëddee mm-hmm. mooy imam Seyd Mouhamadou Arabi mooy jiite jumaa mm-hmm. ci na ñeseen ci éloquence bi ci balaax bi ci xam-xam bi uh-huh. eh, ñëpp di ko suivre à travers groupe média yëpp incha allah fa diine yeeg imaam yëpp association yëpp war fa teew. waaye nag bu sëlmalee ba tàkkusaan mhm. dana jël otoom ndànk ñëw ñàgg seen incha allah toog ak doomu baayam boobu nga xam ne seexam la xaritam la soppeem la léppam la. Mhm. ñëw ànd ak moom def guddi jafalaa gi. daayira yi nga xam ne ñooy ñëw te suba di xat. Mhm. amuñu opportunité di wëy ak di def ay askar tey lañ leen di permettre ñu fanaanee def ko ci biir tànt bu mag bi. incha allah di ci mbappat. Mm. wa sallam di jàng ay ayat alquran yoo xam ne am na ay xale yu fa mokkal koy def ñoom incha allah ñu pare ñu ngi ciy invité ñëpp leen di invité yéen ñëpp incha allah macha allah waaw kaay leen muuru macha allah ñu ngi invité ñëpp incha allah bu soobee yàlla ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp di ñaan yàlla di ko ñaanal yàlla yàlla may ko fan wu gudd amiin yaa rabbi amiin ndax bokk kenn yi nga xam ni symbole lañ te téye nañ réew mi ak ñaan ñaanal borom kër gi fi nekk Cheikh Mouhamadul Hafiz doomam nee na it ñu jottali Sénégal ngërmande goo xam ne gërëm na ko moom kon moom ñu tuddee ko borom ñaari ngërmande yi wallaay macha allah bàyyam Sëñ Mouhamad gërëm na ko beneen bàyyam gërëm na ko moom it mu jël ngërmande ko dajale ko ci doomam ji mu tuddee Sidi Ahmed boole leen ñaari tur yi ndax xamul nu mu koy def kon ñu ngi gërëm di sant Diallo di yi nga xam ne ñoo fi nekk di wax daal wal fajiri ci kaw ca kanam comme ni ngeen koy waxe amiin yaa euh, rabbi taxaw ci kanamu askan wi di leen défendre ak di leen jàppale liggéey nag moom di may wax ku doxul ci yoon doo fakasalu wallaay dëgg la waaye fakasalu moom ittee mm. moo koy def wallaay dëgg la day wane ni vitesse bi ngeen di dawal bëri na rek <laughs> macha allah di jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne kat yi saf sell te wóor Walfadjri auzu billahi mina sheytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim